kon waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bi kaay leen seetaan jàmm ji info gisal ñetti baay ci koñ bi yéepa fay jantal paa ak paa mbaay way sama nay léeg-léeg war waru gàlle waaye use taw bi ci kër gi mooy tawu paa fay du leen may dara mooy sama nday rama mooy séeri jantal ba soxna mooy sama nday mooy séeri fay ne gisal oustaz bi si koñ bi xoolal léeg-léeg Ouzin doxantu woo ko yow mu leen yi waar ne gisal saa ak fili duñ leen may dara mooy sama nday neel ñetti paay ci koñ bi kooru ren nag borom solution kookee mooy El Hadji Mara Cissé mi nga xamante ni da bëgg ku la sopp la yéene la ah loolu moom mooy bayre bu ànd ak mi nga xamante ni wa taala macha foo mënta toll sa yaram day diis ah way fal yaram baa ngi fii tey képp koo xamante ni liggéey bu mënta doon bu mënta doon di laa wax El Hadji neen dama koy toj yow mi amee ndoxum si ti hémorroïde rawatina lii di néew kattan bëgg résultat naturel waaye ashifa di curaay miracle ci dina leen dàqal shayatin ak nitu guddi yi daw leen a gaaw ci boutique Wadduha yi nekk ci diwaanu Géejawaay en face lycée Mame Limamou Laye numéro téléphone 76 310 95 bu nekkee ci diwaanu Point E ci diwaanu Rufisque ci diwaanu Mbour Sali Carrefour 77 966 59 77 fekkee numéro personnel El Hadj Mara web bi www.wadduha.org ak El Hadj Mara dund ci jàmm ak bànneex yaa ngi la war a wax ndax yaa ngi nii nii li nga sol nii xaw ma da ngaa pàccal xaw ma la da ngaa xam ne ci yow lii weeru koor baaxut. maa ngi baaxut weeru baaxut asalaamaaleykum. waaleykum salaam bu baax góor gi fay na ngeen def waay. yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm. nee na ngeen def naka yi tey. bàyyi ci jàmm sonno ci yoon bi. di leen sant yàlla bu baax. Ah, alhamdulilah naka koor gi. sant yàlla bu baax dafa tàng de. waaw naaj bi moom xaw na tàng tey. tey moom dafa tàng moom. Uh-huh. macha allah. gisee naaj bi. Mm-hmm. oustaz naka koor gi ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah jàmm rek yow moom royukaay nga. waaw tabaarkalla royukaay nga moom. yaa mm-hmm. ngi si jàmm bu baax. maa ngi sant yàlla bu baax da ngeen def ak koor gi nag. sant alhamdulilah da ngeen def ak njaboot. ñu ngi si jàmm bu baax a baax waa ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. ah sëñ Faye ñu ngi lay ziar. xale yi ñu ngi fa. yow de daanaka conférence barki biig jaar naa fi waaye fekkuma la fi. waaw man nag soo ko si laa fekkoon ak Ousin bi. xam nga su ma ndogoog pare. damay doxoon. dëgg la dëgg la dëgg la kay dëgg la géej gi fee. dëgg la macha allah conférence rek. waaw ñu ci kaw alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. <laughs> taa yow weer moom seen yoon la moom. waaw waaw waaw gis nga de. weer yi moom. ah weer mu tànn. wallaahi wallaahi ndeysaan. dëgg la dëgg la alhamdulilah ah tey nag dama ne woon xaaral ma dox mbokk comme koor gi moom dox mbokk daf see baax ñun ah, nañ dox mbokk rek ñëw seet si waale suñu fay mu baax mi ndax moom ni mel ci jàkka ji moom royukaay la ci jàkka ji ndax moom day digle lu baax ne nit ñi di woor ne nit ñi di julli nit ñi di jaamu yàlla moom dafa bokk ci ñi koy digle ci jàkka ji waaw macha allah. ma war mhm. su ma neexoon bañ bañ ko def de. dëgg la waaye looloo ma xam nga maanaam diine ñëpp la. Mhm. képp ku gis maam xam ne li kat li war nga ko encouragé mu def ko. dëgg la def ko encouragé mu def ko. dëgg la ak yoo xam si ne encouragement dong la ñuy xaar. wallaay dëgg képp wax dëgg yàlla royukaay nga ci kër gi. alhamdulilah macha allah alhamdulilah. sama de si jàkkatu ndékki bi laa ko gis muy ndékki. sëñ hmm? sa ñëw bii nii dama doon eh noppil yow. déet yow kay may ñu bañ pare. ah gis noppil dama la nga noppi yow amul looy wax gis nga oustaz xanaa kay dangaa ñëw rek mais sama téléphone laa doon jot pour woo la far yàlla indi la tey moom démb fii la toog amul lu neexul yow xam nga leer na ne la jigéen mun a woor weeru koor gépp foog mu am ci 5 jours wala 6 jours loolu yàlla moo ñu ko nattoo ma nekk ma d'accord ko kooru daaw oustaz ñaari fan la ci am ci kilifa bu toll ne moom ak liñ fi lim yépp kon moom day jaamu yàlla jaamu yàlla ngistal si sama doom jii moo ko gis sa jaay ca Binta mooy Binta bi ne ci koñ bi muy ndékki tey mi ngi nii. ah wax dëgg yàlla sëñ Faye bette nga ma lool ndax sëñ fay yaakaar naa ni li nga mel ci koñ bi nekk référence ci jàkka ji keesu jàkka ji bañ na ñu ngi doon xool ndax ren duñ la ko dénk pour wàllu laylatul xadir yeeg waaye xam naa dañ koy mujjee dindi say loxo ndax sëñ Faye yow muskalaf nga ndax da ngaa war di woor tey njaboot gii yaa leen war a sàmm te bu ëllëgee yoon na xiyam yàlla dina laaj ndax nga sàmmewoon sa njaboot boobaa Faye loo koy tontu. xam nga yow lu mu la ko saas tey sax naa fekk waaw baabu yow mun ta weesu yow en tant que oustaz nga ne nga yore benn nopp yow ñii wax nañ la rek nga attaqué lan moo la leer la ñii wax lii lii wax dëgg la parce que déet dañu amul amul parce que parce que c'est-à-dire maanaam amul. xam naa ni kii du fen kii sa doom la waaye du fen léegi wala may fen yaa ko wax de allahu alam waaye nag naa la wax ni benn affaire sëñ Faye naa la wax naa la wax benn affaire sëñ Faye fi mu ne nii boo waree fay wóor bii nga xam ne weer wii nga xam ne wala koor gi nga xam ne nga ko dog dem defi wóoru gàll mhm. deux mois nga war a fay waaw bu bu fekkee ne yaa ko tay te danga kaa tay dam lekk mhm. sëñ Faye yéen yéen a yàq réew mi mhm. sa classe yéen a yàq réew mi bu ngeen jógee nekk ci jàkka yi mhm. di mbubboo ne ñu dañoo jaar dañoo jaar daara ja nekk te yéen yéen a yàq réew mi yéen yàq jumaa yéen a yàq jàkka yi tey sa doom bi bu xooloon ci yow du wóor mhm. lu muy doon xale doon gone mhm. mi ngi wóor suñ fay yaa ma bett suñ fay yow ma too too référence nga nga baal ma nag ngeen déglu wax nga pare wax nga pare xam nga waxtaan u déglu baax xam nga yow de un infraction ngi ñuy wax la nga gëm sa laajoo ma numéro deux mooy nga ñëw traité ma comme un menteur devant mes famille xam na laa xeeti fi diine diine amul kersa maanaam mm-hmm. diine amul kersa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na diine amul kersa fu mu xottee koré na ko fa ñawee waaw léegi nag kon nañ def kersa kersa kon léegi sagam diine ji amul amul amul moral nag mm-hmm. man oustaz naa la wax tey nag yow kersa kersa ñaan ko parce yow kii dégg wax lii mm-hmm. nee na ostaat yow kat boo su man su fi nekkul yaay doon kilifa yi. Mhm. dafa def kilifa am dit ah. ndax wax nañ ne. non waxuma de ba sa baay la ci diine. nga ne ku la jàngal benn araf ci diine. yow loo sa baay la ci diine. kii wax naa ko keroog ne ko nee bi mu ñëwee moom it dinaa dal ci kawam léegi su ma nga wax kii nag maa baayam ci laa maa yow kii yow yow waxam da nga confirmer sa commencement wax da nga ne soo fi euh, keroog guddi jaar nga fi doo na ko pare nga xaar ma génn yaa tey man xam naa xam na xam naa la yow xam naa la yaa ko nga bàyyi ma génn nga dugg kon maanaam yow ngay raasaatu ah ah kay yow da nga koo firndeel ma yow da nga koo lu mu doon sànq si wax nee nga ma wax nga ma nga ne ma bërki biig ñëw nga fi loolu nga ma kon maanaam kon yi seen i wax kon bu correspondre bu correspondre moo am li mu wax tey jii y' a quelque chose gis nga nijaay nga baal ma gis nga kii utaas bu baax la. utaas buy yéen ah, gis nga tànk bii yàlla doomu la ci dox. noppam bii nii yàlla rek lay déglu. gis nga gémminam gii nii yàlla doomu la ci kàddu. gis nga bëtam nii yàlla doomu la ciy gis. loxoom mi nag lépp loo xam ne ah, sii rek. Ah. lu xotteeku la. Ah. moom da koy ñaw. yàlla dong la. ah ah am na lu xotteeku du ko ñaw am na lu xotteeku ko ñaw mukk. kay mooy <laughs> yow kilifa bi nga doon te doo woor. en tout ah mooy li la wax rek. non non non xëy na sa xëy na sa sa doom sa doom war la wax yenn kàddu yi yoo xam ne teggi ne. oustaz xamoo dara jógal jógal jógal jógal eh yaa moom kër gi. kër gi sama kër papa la boo bëggee dàq nga dem sa kër papa nga dàq ji foofu. ngi jégalu baax a baax a baax ci kàddu nag man nag maa ngi ñëw dem comme dama fay jaarale soxna si waaw yow it keroog waxoon naa la ne lii bu xoolaat ko baax a baax ci wéru maa ngi jégalu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah waa kay jërë ngeen jëf lii lan la nii. waaw jàng foo jigéen amul naa la. ah jàng yow yaa ngi nice de. gis nga de gis nga de. ñeme nga wéetaay de. sant gi de heure bi nii lay mel. si loo nekk si yaa ngi si jàmm. jàmm rek na mu naa la de. maa la raw foo jigéen ci naaj bu tàngi bi. xam nga rek dama bëri ay dugg-dugg. xanaa wóoroo yow tamit. yow bàyyi ma man. ah macha allah yow it de yaa ngi def jongoma ba yaa. yaa def nii ah gis nga de. ah gis nga. koy ah, toog rek def à la fin ba man moom. Ah. weer koor gi dama koy sellal maa ngi nii. <laughs> noonu la gën a xam. fi nga jàpp foofu la ah, ah gis nga noonu la dañ sellal rek. Hmm, baax na di sant yàlla. ana sa rek. ah baataay yaa ngi rek ci weeru koor bi. maa ngi la. ah paay. fii. maa ngi préparé. préparé. waaw. sañoo ko. ah yii jànk sañoo ko. Hmm. toogal foofu. kilo yëngu nii nag. fi ne nii lu may yëngu. Ah. encaisse rek laay préparé. lan man waaw maa ngi nii man damay sellal ñëw ma si mbaxal bi. jàpp si ah, sellal waaw damaa woor. waaw nit ki moom wax dëgg yàlla booy def dara ba weeru koor jot da ngaa nag. <laughs> ah ah man de ah, damay ma ma nekkee rek di ko def ba mu saf saf. waaw di lim moo di kaani rek. waaw waaye man moom damay pause. baax na jàpp si léegi bravo réew dana def non est ay rëy ma jàpp barki alxuraan c'est yow da nga posé yow kon waaw ok bi ngay posé nga ni ñaata lañ la jox ah sama paa jox ma trois cent mille trois ceeb beeg dawlin bi ngay wan de ci la jóge eh respecté sa eh, sooy wax man bul wax ak man ceeb beeg. maa waxee ak yow eh, nii ndax eh, da ngaa réew. waaw xale bu réew nag lu ne lay dégg na da ngaa ci bunt bi dañuy déglu. xam nga yow yow yow man man. billaay am naa lu ma métti yàlla bi may créé wal mag daf ma waroon a créé wal mag bu am jom. non heureusement nag. yéen leen doon wax yëpp nekkul sama kii bi dangeen war a xam ni ah nopp amul kubéer gis nga la wax lum ndaw ndaw ndaw nit su toogee fee wala mu nekk fële ah su la suivre tuuti rek xam li ngay wax ma wax ngeen naa ma ay paa yéen amoo leen loo ni mbaraan ah surtout nag si weeru koor weer bi nga xamante si ne dañ naa weer bii nii weeru bonus la loo si def soo si defee benn yàlla suñu borom fay la ko dix yéen ngeen ñàkk jom di si ma wax ngeen iri ay pa yow iri pa moo la fekk ah. ah. eh, man aw benn xam-xam pour waar leen mais xamal xamal la laa pour ngeen bàyyi seen mbaraan bi doomu aadama jigéen surtout jigéen da ngay fonk sa bopp respecté sa bopp soo respecté wu sa bopp ñu si bidd duñ la respecté surtout man soo leen doon joxe seen bopp sax ay ay ay xale sax ñu waaye yéen topp si paay di leen yow dem wax naa la ay ëpp yërmande ci la ñuy topp ngay jàpp sa bi di joxe ñu la koy riita mbale ndeka ne yéen ñaa ñi yéen a ko ànd la man maa tey ko deful du ngeen lekk ci ndax yow gontoo boo xëyee di compter potu lampe yi sama ngi grand place ba sama yaay daw naa daw ba ba sonn dama koy jàppale comme que liggéey boobu moo fi sax dama koy def. pap yi ma sa place rek. yow de yow de man tiit naa si yow de ak kii yàlla tiit naa yow. dëkk la man mag boo xamante man man comprendre ma woon dëkk de affaire yu demee. parce que parce que da ngay toog jékki-jékki rek gis dara ñëw nii mais man du ma sax baax damay xool sama pap ndekk yow xaalis li ñu indi si kër gi yëpp yow yaa koy dem joxe sama. noonu la demee ñu la nga ñëw yéen ay caga kon waa koñ bi kaay leen xool. waa kon waa koñ bi kaay leen xool. waa mooy sama rama mooy séeri jantal ba soxna we sama nday mooy séeri fay ne gisal usaas bi si koñ bi xoolal léeg-léeg usin doxantu woo ko mu leen yi waar ne gisal saa ak fili duñ leen may dara we sama nday neel ñetti paa yi ci koñ bi